àdduna yeewu leen jëmam jëreer na leen sëriñ Saalu jëfam duni la muy euh, ma di la fàttali ni njabootam ji yëpp bi sëriñ Saaliw toogee ci fii ci xilaafa nekk fi sëriñ Touba ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ Touba daan def ci mag ñi ma di la wax ni la Cheikh Béthio daa jël njabootam gépp jox sëriñ Saaliw ba ci man mii ak samay moroom te loolu nag ba ñu fa demee jëlee nañ fa ngërëmal Serigne Saliou jëlee fa ngërëmal Serigne tubaata muy lenn waaye jële nañ fa nag ak taalube ak taalube jëlee nañ ko fa looloo waral bi yëf yi amee ñu wane ci ak dal wane ci ak dal doxe ci ak taalube keneen koo doon gisit muy dox leneen lu dul loolu xëy na cofeelam ci sëriñ bi moo ko yóbbu ci loolu waaye képp ku yàlla dimbali nga am loo xam te moom daf ñu ko yàgg a wax képp ku yàlla dibbali nga am loo xam di nga xam ne sëriñ tubaa Touba mun taxaa mooy sëriñ tubaa te Cheikh Béthio ab jàngaleem loolu da cee bokkoon nu ñuy toppee sëriñ Touba nu ñu war a amee ak taalibe bi loolu amee nag ci la ñu daal di nag fàttali ay waxam ñàngale moom mu ñu jàngaloon wan ñu ne ñu ku fi toogal Serigne Touba lu mu leen wax nangeen ko def ci saa si ci lañ taxawee def loolu nga xam ne moom la sëriñ mun Mountakha bëgg. leg lek, xer ak bëgg sab sëriñ dina la yobbu ci nga def lo xamul té nit nit rek la mëna doon nit day juum li gëna neex nak ci aduna nit juum nangu ne juum na dafa am lo xamni dañu ko wara japp ci njabootu sëriñ Béthio moy lima la ko dalena yar ci ak talibé yar len ci ak murit Cheikh Béthio lu mu massa liguel Serigne Touba ak njabotam ca kanam la dem ca front ba la jitu ñoy jitu ca kanam mo xam kom mo xam jang khasside mo xam jëfi magal jëfi gam lu mu mën doon Cheikh Béthio ne ca mok ak njabotam ci and kon leg leg nga gis talibé bo xam day melni day jakarlok doomi serigne bi melni kuy am njumte ci ci ci li mu ci mom té lolu di erreur bo xam ñun ñëpp ko wara maytu ndax kat muno wax ni dama gëm señ beccu yaakar ko mu defal ma lim ma defal nga ne ah man kat ma ngi dekkon beurep sangam dama daan jeli ñol dama daan def nangam dama daan def lu bon moma ma ca jele def ma ni mu ma def ba kuma gis bëgg ma nga mëna a jàkkaarloog un sayidina ne domi señ beccu la ni ki nak ah ki nak du nit ku bax boba yaangi weddi sa bop weddi nga sa bop ndax kat olof Njaay dafa am lu mu wax neena bay ci sa weewu tànk Cheikh beccu bu fekkone da wër di defare te tàmbaleewu ko kërëm dinañu jaaxal lim tàmbali defar ko ci ay nit ci biir këram la ko tàmbalee ci ak njabootu boppam te loolu nag nit ñi am na ñu bari ñoo xamante yàlla dimbali na leen ci am na ñoo xamante ni nag wax dëgg yàlla yàlla dimbali na leen waaye nag dañuy jàkkaarloog asamaan si tiim weer wi ñu xool weer wi nga leen lii weer wi la ñun la noo lii moom naaj bi la loolu nag moom kenn mënu ci dara ay dogali yàlla la waaye njabootam ñu gëm sëriñ tubaal lañ ñu fonk ak taalibe lañ diiñ lañu ñu bëgg lu baax lañ te fépp fu dem ci réew mi. ku leen gis xam ne ñii kat seen waajur wa yar na leen loolu nag laa doon waxtaan ak sànq mbokki taalibe yi di leen ko di leen ko di leen ko fàttali ngir ñu amaat beneen jàppin wu ñu am ci digganteem ak njabootam. àdduna